asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen seetaan réew mi TV daleen ak jàmm ci seen premier numéro de la semaine bu seen émission actu réew mi comme ni ñu koy defee euh, bés bu nekk di leen jaajëfal euh, ci li nga xamante ni moom ngeen di seetaan li di réew mi TV euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk rek dañuy waxtaanee wàllu actualité biir réew mi ak bitim réew tey jii nag sujet yi nga xamante ni moom lañ leen di andil bëri na toll ci ñeenti sujet yoo xamante ni war nañ ko waxtaanee tey laataa ñoo ñëw ci li nga xamante ni mooy sujet yooyu may bàyyi chaque fois ki chroniqueur monsieur Jean Fall euh, Mor maa ngi lay fay di nuyu nag euh, suñu technicien yeeg euh, télé caméraman yi. Mm-hmm. ak ñi nga xamee ne ñoo di internautes yi. voilà mu nekk euh, les ñi nga xam ne ñoo nekk les de l'ombre ñu leen di nuyu baax a baax donc tey sujet yi nga xamante ni war nañ koo waxtaane tey euh, ci biir actu réew mi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy wàllu émeutes yi amoon ci wàllu inondation yi ak blocage bu cortège euh, bu Antoine Diome démb ci dimanche ji waaye tamit dinañ wax ci Abdoul Mbaye li mu wax ci échec bu plan décennal yi nga xamante ni am na ci inondation yi waaye tamit dinañ toftal li nga xamante ni moom mooy li ñu jël ci li nga xamante ni moom mooy ay initiative jigéen gi mën a xeex mbënd mi lu toll ci 150 hydrocureur ak 150 li nga xamante ni moom mooy moto pompe euh, ci loolu bu ci jógee dañu wax ci wàllu opposition bi ak fusion bi ñuy euh, daal di euh, toftal li nga xamante ni moom mooy an coow ci li nga xamante ni mooy wàllu transfert ay électeurs ak lii di certificat de résidence yi fa nga xamante ni moom mooy Thiaroye loolu moo nekk li nga xamante ni moom mooy sujet yi waaye comme ni ñu koy defee a Euh, ci euh, xibaar yi fi nga xamante ni mooy réew mi quotidien à la une Abdoul Mbaye euh, sur les inondations on est dans la tricherie waaye tamit ci même sujet bi nga xamante ni moom moo nekk ci Abdoul mbay le plan décennal a été abandonné plan Orsec 50 hydrocureurs et 150 mots de pompe déployés les émeutes se poursuivent toujours à la une de Rewmi Quotidien réunion d'urgence au palais Macky a sermonné ses ministres Euh, candidature à multiples à Wakam la Cogère mais en garde euh, toujours dans euh, Rewmi quotidien partie sport mondial beach soccer les Lions filent en quart et Prime League Mané quatrième meilleur buteur africain et toujours en sport affaire Mbaye Niang Rennes prêt à casser son contrat donc mon père maa ñëw ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy la une de Rewmi quotidien ñu wax ne Abdoul mbay sur les inondations situation on dans la tricherie ban jàng nga am si tiir waaw euh, Mor dina kontaan ci euh, laaj bi nga ma laaj ak ci li nga xamee ne tey moo nekk la une de réew mi quotidien mm-hmm. ndax xam nga euh, Assane Samb moom day bu bu fus day ñëw day jël cin li rek. Mm-hmm. def njabaan bu saf rek daal di ko sotti mu nekk loo xamee ne dafay day ñëw rek nekk en plein dans le mille ci li nga xame ne rek mooy préoccupation askan wi. ci wàllu nag li nga xamee ne moom la euh, kii euh, premier ministre bi di wax ci wàllu tricherie bi loolu dafa bokk ci li nga xamee ne rek mooy situation bi nga xamee ni moom la ñuy dund ndaxte soo xoolee ci biir réew mi quotidien di nga gis ne euh, quotidien Assane Samba bi mu ngi naan Macky dafa dànkaafu ministre yi ne leen bëggatuma ngeen di ma um, um, won ay fleur ak situation di ma jéem a nax wax leen ma li xew ma régler ko benn yoon léegi ci biir loolu ñoom ñëpp li nga xamee ne moom la ñu def te ci ni nga xamee ne noonu la ko Assane Samba waxee nga daal di gis ministre de l'intérieur dégg nga daal di jóg ñu jël ne don léegi nag comme que nii la ko président bi waxee ak yu mel noonu ku ci nekk yaa ngi bëgg a wone sa bopp daal di yëkkati ay moto pompe fekk population bi ci boppam Euh, boo leen indilee moto pompe fi ñu toll nii ak li ñuy dund dañ naan yow dang ñuy ñaawal dang ñuy mobile ki nga xamee ne moom moo leen jox euh, moo tax ñu yëngu muy président bi dégg nga yéen ñii ñëpp ay euh, kii la action politicien la action politicien da ngeen di xaar mbënd mi ñëw liggéey bi ngeen waroon a def ci plan décennal bi defu leen ko amul résultat dégg nga ngeen bëgg a ñëw léegi léegi pour solutionner problème bi ba pare ndax ci dolli ndax ci am na ci benn ministre bi nga xamee ne moo yore kii bi ba mu lajjee dafa tourner daal di jël suñu situation di ko comparer ak situation ba nekk Allemagne infrastructure ya nekk Allemagne bu fekkee ne ñooñu la mbënd mi mun a yëngal ñun ñi nga xamee ne ay euh, infrastructure carton la ñu yore dégg nga bëgg indi daal di ne jot nañu def lii te fekk Touba. fekk euh, li nga xamee ne moo di euh, yëmbal ak euh, dëkk bi nga xamee ne mooy Kër Massar ñoom ñëpp dégg nga ñu ngi nekk ci ay fitne yoo xamee ne suñu paree daal di ne bon de façon plan émergent bi dégg nga plan émergent ceebu jën bu neex la boo xamee ne ñoom ñu ngi koy lekk ñoom ñu ngi seen plan émergent mais plan bi nga xamee ne moom mooy ndi jafe-jafe yi nga xamee ne population bi moo tax ñu daal di jóg nag daal di ne bëggatuñu loolu voilà léegi ci li nga xamante ni moom mooy beneen titre bi les Lions filent en quart donc bu nekk euh, ci mondial bi soccer bi donc ban jàngat nga am ci euh, performance Lions yi. Euh, jàngat bi ma ci am rek moo di que ni Sénégal sport bii la ñu am. boo xamee ne bu stable boo xamee ne mu ñuy indi ay raaya du ñu indil ndam. kon nag footballu plage bi footballu football bii moom xam naa ne Sénégal moom macha allah jël na fi plusieurs fois ay euh, li nga xamee ne moo di ndam li jël ko ci Afrique dégg nga daal di indi rayonnement ci euh, ci dans le monde. donc mu dóor mu dóor ki nga xamante ni mooy tenant du titre di Portugal. waaw donc euh, que kon mën nañoo am yaakaar ci suñu moom di gisuloo sénégalais loo boo seetloo lenn mooy ñii nga xamee ni ñoom ñu ngi def ay résultats duñ leen faale mu ngi mel ni comme basket bi. bu njëkk ba bu ñu daan dóor nii di dóor di dóor di jël coupe d'Afrique di ñëw di kii yooyu duñ ñu faale. mais bu ñu demee ba nga xamee ne enjeu yi commencé na jóg ba nit ñi taxaw far ñu lajj fa rek ci la ñuy commencé di jóg di tiit daal di yëkkati suñu adrénaline ñii nii dañu yàgg indil ay ndam kon nag dañuy mun rek comme nii nga xamee ne noonu la ko Assane Samba titré parce que xam nga réew mi quotidien su fekkee ne gis nga bëgg nga gis l'information vrai gis nga tey ji bi nga xamee ne euh, Euh, makki Sall mu ngi yuuxu ministre am yi dañu xëy suba rek nga fekk ko ci réew mi quotidien ñu jékki-jékki gis ne euh, li nga xamee ne population yi moom lañ doon xaare ak li nga xamee ne moom la makki Sall doon xaar nga di jóg rek di def activisme di jóg pour ñëw def ay colmatage ay brèche yu mel noonu ba ñu indee moto pompe yi rek gis nga li xew démb ci ndakaaru gi ñu daal di euh, population yi dañu jël ay xeer di sànni ragalatuñu sax li nga xamee ne moo di gendarmerie te loolu nag dafa nekk loo xamee ne euh, yow mii fekk na la li li xewoon démb yaa ngi woon en plein dans le mille ci biir kii bi euh, ci biir euh, événement yi parce que foofu lay jaaree sa dugg ci biir sujet bi muy manifestation yi amul démb ci mhm. biir euh, Dakar mën nañu wax ne euh, Kër jàmm Diamaguène euh, Fass Mbao fépp ñu ngi doon manifester mhm. pour fësal seen mer ci li nga xamante ne moo am ci inondation parce que doon jàpp ne kenn lijjantiwu leen donc yow ba nga gisee image yi xeex bi fii ñu bloqué li nga xamante ne mooy cortège yu Antoine Diome mi woon ne de terrain donc yow ndax jàpp nga ne seen ñi doon def loolu dañoo nekk seen droit wala dañoo jub ñu doon def loolu dañu euh, dañu dañu damm dañu sës te nit ki nag bu sësee yàgg nañ ko di ko wax ki nga xamee ne moo di Macky Sall dem na ba nga xamee ne population am na ñoo xamee ne dañ naan du ci moom ci ñi muy yónni la donc ce diir veut que ne même moom ñu ngi koy plébiscité di ko wutal ay lay moom it démb ba muy wax samedi ba mu leen di waxal dafa leen ne gis nga bu leen ma fi kenn indil dégg nga ma daal di dugg dans ci nam leen ko war a waxee rek parce que ñun sénégalais la bu leen ma fi indil ay kii def na lii def na lii def na lii indil leen ma lu leer ma xam li may def lan la bon te ci biir loolu di ma wax ne ma c'est trop tard ndaxte sept depuis 2012 700 milliards yooyu ñu génne noonu te ba tey amul benn rapport te ba tey amul benn plan boo tey jii bu fi euh, gouvernement euh, Macky Sall jóge woon tey jii li ñun sénégalais yi lan la ñuy def dañuy xaar beneen président bi daal di ñëw ne non plan décennal laay def comme ni nga xamee ne Abdou Mbaye noonu la ko waxee ci biir réew mi euh, quotidien dégg nga euh, ñu daal di recommencer waat beneen plan décennal mais loolu mooy li nga xamee ni moom la ñu war a bàyyi fii ci réew mi. mais man li ma jaaxal moom mooy comment est-ce milliards sans pourtant ñu régler problème parce que euh, bu ñu defee li xam mooy moom mooy comparaison ci ñi fi jot a nekk euh, kii di Abdoulaye Wade temps am na benn plan bu mu lancé muy plan Jaxaay euh, investir lu toll ci 54 milliards te boobu nañu woon sax xaw na parce que am na ñu mu déplacé woon yóbbu leen ci yeneen dëkk waaye ñu dëkk fa mais Macky Sall a mis 700 milliards Euh, Abdoul Mbaye confirmé ne moom ba mu fi nekkee ci euh, première phase bi ils ont investi euh, plus de 64 milliards donc li si des xamul fan lañ dugal xaas bi donc loolu nga xamante ne moom moo am ci ci xaas bi ñuy yàq à chaque fois te mu ñu trouver nekk nii dañuy def dans l'aveuglette comme comme ni ko waxee si titre bi tricherie moo am ci biir mbir mi. tricherie mooy colmatage de brèche la ñuy faral di def rek dañuy taf yëngal. taf yëngal di colmater di tey xam nga par exemple ndox buy bal fenn. nga daal di jël tuuti plâtre dégg nga daal di taf taf taf ba mu kéeg yooyu bu yàggee rek tepp tepp ba day dellu siwaat nga gis muy tooy di tooy di tooy ba loolu dindeekuwaat loolu moo leen dal te dafa nekk li nga xamee ne euh, dama doon jàngat euh, intervention Abdoul Mbaye bi sax ma gis ci lenn loo xamee ne da ci xuusul lu yàgg te aussi daf ci am loo xamee ne moom i tamit Euh, xam naa ne dafa nekk intérêt moo tax mu wax loolu. mais moom mais moom nee na buñ ko wooyee mën nañu leeral fan la dugal xaas bi nga joxoon pour wàllu kii donc moom instant bi moom il peut euh, euh, day day day jéem a sauver son son sa peau wala wala ndox noo mën a jàng si kii mooy li nga xamee ne rek moom laa doon wax nga lekk sama lanc parce que mm-hmm. bañ koo wooyee ca gis nga coalition boobu nga doon mm-hmm. junju ne dinañ ci ñëw mm-hmm. bañ ko wooyee dafa ne Eh, ñii nga xamee ne ba ñu nekkee ci affaire yi ñoom ñoo doon indi situation bii ñoom ñu war a daal di ak yeeg yooyu te indi lu bees te te man ba ma ca nekkee lii nii ma doon def mun naa ci génne ay mbir dégg nga ñaari jàngat moo ci nekk premier jàngat bi moo di que ni ñii bu ñu defee coalition dañu naan candidat unique ci présidentiel ba parce que loolu muy kii noonu ci présidentiel ba euh, parce que moom ci boppam wax dëgg ci local yi moom bokkul ci gox parce que moom président la bugga doon alors comme moom président la bugga doon nag donc bu bokkee ci coalition taxawu Ndakaaroo taxawu Pastef ak euh, PDS dégg nga te ñoom li fi nekk yëpp mosuñu régler benn problème moom il faut que mu daal di ñëw nanay neuf ak analyse nouvelle boo xamee ne dina mun a convaincre population yi pour que moom bu fe ak coalition bu mu war a mun a def ak yeeg yooyu mun daal di man maay président xam nga kooku affaire u Sénégal la rek xam nga man bi ma nekkee xale dama daan wax ne rek su ma nekkul président du ma bokk ñu di ma nax di ma nax ba ma bokk dégg nga affaire bi c'est-à-dire soog a nag mun a euh, ñu daal di àndandoo di kii yooyu dafa am ay nit yoo xamee ne loolu moom mooy seen kii. Mm-hmm. gis nga euh, fi ñu toog nii dama la koy wax ci suñu émission bu mujj bi maa ngi lay wax ne la politiciens yi dañu war dañu bëgg a réveiller waat de leur cendre ndaxte population yi ca émission bu njëkk ba wax naa la ne fi ñu toll nii. puis la posé nga question bi léegi dal di ne Abdoul mbay posé na ko daal di ne milliards ya fa ne ñu nekk ak position ya nekk dafay bëgg a leeral c'est le flou total ci biir flou total boobu flou boo total boobu moo di que ne dara leeratul mënalatuñu ñoom ci seen ba sax mënuñu leeral dara mënuñu la wax ne la fii lañ dugal milliards yi fii lañ ko génne mënuñu ko wax te population yi gëmatuñ leen te population yi xam nga lan lañ doon xaar ñu woon Macky Sall sol ay bot ñoo foofu dañ doon xaar euh, ndox mi wàcc si ñu nekk ci jafe-jafe yooyu ñu indi ay pompe ñu daal di ne ñii dañu yàpp 150 pompe et 50 hydrocureurs pour le Sénégal nañu ñii dañu yàpp mm. parce que foofu lañ ko bugg a teg daal di jékki-jékki bu ñu defee 150 pompe di pompe di pompe dégg nga ñële ñu ngi nekk ci seen euh, promiscuité bi am ci pandémie bi ak euh, hygiène yi nga xamee ne ñu war a nekk ak xale yi nga xamee ne ñu ngi lab ci biir ndox yi. Mm. liir yi lab ci biir ndox yi. Mm. am xale bu ñu gis yooyu yëpp yooyu yëpp dégg nga mu daal di nekk li ñuy wax Sénégal à deux vitesses. Mm. plan émergent bi mooy ñi seen ceebu jën di niin. yaa ngi dégg ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo nekk ci inondation yi mbënn mi ñooy ñi nga xamee ne ñoom ñoo toog. di wax na ñii depuis deux ans parce que li amoon na fi daaw yow depuis le mois de janvier bi taw yi jeexee daaw ba taw yi ni ñuy ñëwee ren ji sax yàlla may nañu sursis boo xamee ni mois de juillet bi sax tawul gisuñu dara dara dara lu ñu def ba taxaw nag ba bi ñëw bañ ne këtt ne jonn ñu daal di ne kaare ñu indi leen moto pompe mais plan Orsec ñu ne mots de pompe ils ont parlé de 50 hydrocureurs et 150 mots de pompe pour tout le Sénégal te xam nañ ne Kër Massar gi rek 150 mots de euh, doy fa est-ce que nekk nii lii moo gën a yokk sénégalais yi wàcc ci parce que dañoo ne yàpp Sénégal loolu Sénégal ñoo ne 150 mots de pompe et 50 hydrocureurs. mooy li ma la wax mooy dama la ne population yi dañ doon dafa mel ni. dañu leen ñaawal daal population yi kii yu ñu. population yi euh, pré prémédité wu ñu euh, affaire bi. parce dafa am yenn yoo xamee ne su fekkee ne da ngay toog di xaar. dégg nga ñu naan ne dinañu indi moto pompe dinañu indi wàllu population yi soxlaatuñu wàllu soxla population yi dañu soxla ñoo xamee ne dañ leen di jàngal nu ñuy nappee pour xeex mbënd mi wala def ay infrastructure yoo xamee ne du Kër masaar rek parce que Sénégal du Kër masaar Touba ngi nii benn xale dee na ci biir ndox mi da ngay dem ci yenn endroit yi man bërki démb laa jóge Touba mais da ngay gis ay ndox yu def près de un mètre dégg nga même man sax dama doon toog ba si ak daal di ni xanaa fii dégg la woon dama doon am sax envie pour plonger pour fay mais dafa nekk loo xamee ne mhm. dégg nga nekkatul pour di wax pour jaxase nit yi ak nit yi mhm. mais dañu nekk ñoo xamee ne soit dañu lajj ñu daal di taxaw avouer seen euh, seen incompétence mhm. ñu daal di ci jóg gàpp ci mu ngi mel ni comme Euh, li nga xamee ne moo doon euh, coowul daaw ma le verdict boobu ñuy wax naan combat bi fi amoon daaw ca wàllu xale ya amul plan amul disposition yoo xamee ne dinañu ci mun a sukkandiku pour mun a wutal xale yi liggéey c'est l'occasion pour que xale yi mun a liggéey mais ça va être des des travaux temporaires dégg nga te loolu ñuy def noonu dégg nga bu ñu jëlee les grandes euh, entreprises publiques dégg nga daal di jël xale yi nga xamee ne ñu ngi nekk en nage de travailler ñu laa di leen jël daal di def un partenariat boo xamee ne dinañ leen mun a impliquer ñu milliards yi ñuy jël di ko sotti mais xëy na dinañ ci mun a suturlu c'est dafa am organisation mënuloo xëy suba wax naa ko léegi ci may tontuwaat ki nga xamee ne moo di ministre boobu la ñuy wax Omar Gueye di ko wax ne ko mbirum Allemagne du mbirum Sénégal le problème moo di que ne bu fekkee ni infrastructure yi nga def doyul mais c'est le moment de redoubler d'ardeur ak jom boo xamee ni daañu mën a génn ci situation bi parce que foofu ngeen demoon liggéey nee ngeen nen mun dara amu fa ñu ngi gis ay résultats waaye fa nga xamee ne laalagu leen ko foofu lañ leen di toppee te fañ leen di toppee boo demee Kaolack la même chose boo demee Touba la même chose Thiès la même chose yaa ngi dégg donc yooyu yëpp da ngeen di régler Kër Massar ba pare soog a dem toppatoo jëfale non il faut un mouvement d'ensemble dégg nga simultané boo xamee ne dañuy jóg dóorandoo Chine bañ koy defar dégg nga dañu jóg dégg nga ca euh, au quatrième siècle avant Jésus-Christ la jóg di def muraille de Chine jël muraille bu def plus de mille kilomètres dégg nga bu def Ndakaaru ak euh, ak Paris ñu teg muraille ba muraille ba ñu ngi ñëw di ko xool ba léegi ba ñuy defar seeni métro da ngay dugg biir biir biir France sax da wax ne mais France est-ce am na suuf parce que da ngay gis foo dem dër la mais nan lañ fexee ba dër foo xamee ne mook Sénégal euh, ki yéntuwuñu euh, ëppul Sénégal euh, mu mel ni Sénégal gi yëpp ñu daal di ko dër Dakar ba Kaolack <laughs> kii yu mel noonu doo gis sax foo xamee ne am na am na ay ay kii ay pavé ngay gis ak kii bu mel noonu mais liggéey boobu ñu war a def ak plan yi nga xamee ne moom la ñu war a liggéeyee Sénégal benn plan la jëm mooy plan Sénégal émergent de de de deux mille vingt et un à deux mille trente cinq xaw ma trente. deux mille voilà. <laughs> donc <laughs> mais war na am ay plan wu cinq ans. plan wu trois ans plan wu quatre ans pour que ñu mën ci génn par exemple plan yooyu war nañu mën a fexe ba réfléchir au niveau de la législation def les réforme qu'il faut nga xamee ne Macky Sall suñ ko fi jëlee kenn kiy ñëw du mën a dindi loolo parce que bu ko dindee dañuy xam ni kii buggul Sénégal te buggul liggéey. voilà buggul Sénégal te buggul liggéey kon ñu foofu lay jaaree daal di euh, tëj boobu les sujets donc euh, di masaw rek ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbënd mi jamono ji parce que démb maa ngi fa woon dem naa fi nga xamante ni moom mooy caa caarooy dem jàmm gën euh, damaa aussi si manifestation yi donc ñu leen di masaw rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni dund leen rek loo xamante ni ñi ngi ni ko mën a wax rek moom mooy li nga xamante ni moom moo nekk ci mbënd mi moom je pense que loo xamante ni lu war a benn long terme la war a nekk mais wul nekk loo xamante ni daal les médias ñu wax ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu opposition bi nga xamante ni jamono ji euh, fusion mi bëgg am ci diggante PDS ki nga xamante ni mooy Pastef ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa taxaw Dakar di xalifa Sall donc yow ba nga déggee benn loolu information boobu ndax jàpp nga ni loolu lu mu a mën a nekk la parce que ki nga xam ne mooy Sonko dafay wax ne moom day xeex système bi Abdoulaye Wade si système bi la jógee euh, euh, ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall mun nañu wax ne mu ngi si système bi mu ngi ci mi ngi ci biti donc fusion boobu est-ce jàpp nga ne fusion bu baax la wala c'est juste benn fusion boo xamante ni c'est juste pour régler benn benn chose boo xamante xam nga ne fusion boobule ñun yàgg nañu di gis les fusion contre nature di gis ay capitalistes ak ay communistes ak di leen jaxaseeg di leen kii gis nañ fii li nga xamee ne moo doon. Euh, ñoom Landing Savané ak euh, communiste yeeg socialiste yeeg capitaliste yi jaxasoo mélangé bien que dialecte yooyu sax léegi <laughs> kii yetuñ ci noonu euh, toog a toog taxawatuñu ci gaam yooyu mais li wóor mooy ñi nga xamee ne situation cherté de la vie bii ñuy dund ak jafe-jafe yi askan bi di dund ñoom ñoo doon les premiers acteurs bu ñu demee bay def coalition ak ki nga xamee ne moom moo nekkoon di xeex système ak yeeg yu mel noonu yow il faut que nga daal di tu dois être perplexe li nga xamee ne tubaab bi noonu la ko waxee boo di gënee da ngay nekk di ree ci suuf di wax ne ñii nii Euh, gato bi nga xamee ne moo taxaw fii moom la ñu def ay stratégie pour dindi ko pour jaxasoo jël ko fii ba pare daal di ñëw def yëfu maa tey dégg nga Mercedes 60 millions yi di commencé di jolli euh, li nga xamee ne moo di pétrole bi war a ñëw dégg nga ku ci nekk daal di ne maa fi juddu woon nii maa fi nekkoon nii man lañ fi jàppoon nii ak yéegu mel noonu. Mm. yooyu ngay gis doonu dafa mosul am crédibilité boo xamee ne. moo tax gis nga bu ñu koy wax ne dañuy balbutier parce que suñ koy jëkkatee fësal ko rek léegi nga gis population bi ci boppam dégg nga seen problème moo di que ni cherté de la vie angoisse bi nga xamee ne ci la ñu nekk ak tiitaange gi ñu nekkee ak mbas mi nga xamee ne amul solution te ñoom ñëpp de boo leen xoolee ci euh, coalition yi ñuy def ak plan programme yi nga xamee ne ñoom la ñu war a proposer askan bi ni ñu xeexee mbas mi sax xamuñu ko. Mm-hmm. parce que boo ñu kiyee dangay ngay jékki-jékki ñu daal di ne benn dëkk amul solution bu muy kiyee si yeneen dëkk yi am nañ solution ndaxte yeneen dëkk yi ñu ngi toog di wax ne comme ñun dañu impuissant devant génne li nga xamee ne mooy rey feebar bi. mais na ngeen déglu li nga xamee ne moom la docteur yi di wax comme xalif général bi nga xamee ne moom moo génn keroog ci veyu euh, tamxarit bi li nga xamee ne moom la doon comme ñii nii amuñu gouvernement bi amuñu solution loolu la wax mm. man damay traduire rek ni mu ko waxee parce que soo déggee mu ne la euh, ñun tëj nañu suñu ay jàkka gouvernement bi nee na nañu tëj jàkka yi boo gouvernement bi ne nañ tijji jàkka yi te indiwul solution boo xamee ne boo méngoowul ak réseau yi taxoon ñu tëj jàkka yi nañu continuer tëj suñu jàkk loolu c'est très clair ça veut dire que ils n'ont pas apporté de solution ñoom gisuñu lu leen doy mais li leen doy la ñuy def alors li leen doy nag ak li doy population bi moo di que ni ñoo saafara seeni jàngoro saafara jàngoro moo tax ñu teg leen ci. Mm. léegi nag lu ñu ñoom population bi loolu la ñuy xaar. donc mais est-ce que jàpp nga ne kii bi dina dem fusion parce que euh, Sonko ak ñi bokkuñu woon li nga xamante ne mooy gis-gis te bu ñu demee bés cappaandoo gi dina am kenn ku war a jiite te je pense que PDS du nangu Sonko jiite kenn ku ne doon nangu sa morom jiite la donc est-ce que boobaa du duñ confirmer li kii di wax ne jusque genre. Euh, coalition de circonstance. Euh, circonstance boo xamante ne bu yàggee sax. pour ñuy jël nangu nguur gi. Mm. wax bi loolu la coalition de circonstance la pour mun a nangu gi. Mm. donc l'histoire se répète comme ni ci ci. l'histoire se répète l'histoire dañuy nekk naan kii la kii la kii la benn troisième larron jóge fële daal di ñëw ne salaamaaleykum man la dégg ñu am yaakaar ci comme ni ñu yaakaaree woon ne ah Macky Sall après tout xëy na moom sax moom loxoom set na moom sax nañ ci dem ak ba ñëwee taxaw lenn rek lañ fi kii yegum dañ ñëwee taxaw ñu ne ko ñàngal. mu taxaw di ñàngal gaa ñi ragal ko ragal ba léegi dañ ko ragal sax parce que gis nga keroog samedi dégg naa dafa dóor ci taabal ji xulli bët ñi nekk di lox ba ñu téyee dañu tiit génne ay pomp daw ba ñu ñëwee population ne du fii xeex ba jolli loolu dafa nekk loo xamee ne nii ko population bi di yeeg yooyu bu ñu demee ba nga xamee ne population bi jël na maturité wala sës na ak yeeg yu mel noonu ah attention donc fi mu nekk nii est-ce que est-ce que du fragile fragiliser li nga xamante opposition bi parce que bu ñuy demee ne le am na ñeneen ñu nekk beneen côté parce que y a y a Bougane kii à a euh, ki nga xamante ne moom mooy Malick Gakou à côté ñoom ñu nekk seen côté est-ce nekkul bu ñu bu ñu tasaaroo rek day jox doole ki nga xam mooy mooy Macky xam nga le problème moo di que man ci opposition bi bëgguma di tudd ay tour hmm. parce que. Euh, xam nga ñi nga xamee ne dañu euh, nekk ci opposition bi euh, te yéenantewuñu jàmm <laughs> kon nag dama naan rek ku ci wóolu sa doole rek làmb jaa ngi nii nga daal di ñëw wala jàkka jaa ngi ni nga ñëw nodd bon comme nag tudd nga ne ay ñoo xamee ne dañuy ñëw di nodd ak yeeg yu mel noonu te ñoom xëy na li dal ñii moo leen dal ndaxte tey jii ma jox la benn analyse da ngay ñëw ci gouvernement beeg Macky Sall ñu ne la def nañu quatre cent mille emplois. virtuel ou bien cent mille emplois la ñuy wax ba pare dégg nga di génn ay chiffres te du ñu rus te du ñu euh, kii. ay ñool ba boole leen daal di ne leen waa loolu fan lañ ko mën a gisee gisuñu ko seen agence yooyu ngeen di wax ak yeeg yooyu lan la ñu def kan moo jóg am liggéey di dem di dellu si di ñëw di sutural waa këram ndax emploi yooyu emploi yu saisonier la wala emploi emploi mooy que ne emploi yoo xamee ne da par par jamono lay lay lay kii saisonnier ak emploi durable ak li nga xamee ne mooy kii parce que réew moo xamee ne mosoo dégg ñu daal di la wax ci li nga xamee ne moo di législation du travail nga bëgg a indi ay ay liggéey teg nga xamañ ne li fi nekkoon ca colon ya lañ fi defoon ba tey moo fi nekk nga bugg toog dégg nga daal di ne man kat fi ma nekk ni euh, damay jóg pour jël système bi déedéet jël euh, coalisé pour foqati nguur gi daal di ñëw taxaw dégg nga pour rek daal di euh, contenter sa ay mbokk xam nga léegi fi nekk ni ñu ngi topp waa ji nekkoon naan ko sa mbokk yeeg sa xarit yeeg sa am di jàmm yeeg yi ba ñoom ñoom ngay jéeg yooyu ñoom it noonu ñu ñuy def nii rek pour fokkati góor gi la seen mbokk yeeg am di jàmm yi da nga daal di commencé di eh, di poudre mm. ah, di émaillé di kii yu mel noonu di dugg ci oto yu rafet yi. Mm. waaw loolu la rek. kon jàpp nga mooy continuer di amaat tant que tant que. di amaat tant que delluwaatuñu ci rééduqué waat eh, suñu bopp. tant que ñu waat ba daal di régler waat la problème de civisme tant que demuñu ba nga xamee ne ma dellu si waat ci ministre boobu di ko wax ne ko ñu Allemagne ba division blindée yi Hitler doon yóbboo kii doof nañu lu toll ci deux mille kilomètres yoo xamee ne division euh, divisions blindées ak euh, infanterie dañ ko doxee euh, Berlin ba Paris loolu ci ci ay euh, conditions climatique yoo xamee ne exécrable yooyu yëpp ñooñu loolu ñu def noonu ak révolution bi 1789 ak ni nga xamee ne noonu la ñu demee ba taxaw daal ne nul n'est censé ignorer la loi il faut que ñu daal di euh, étudier euh, éduquer population yi pour que rek ñu daal di mun a am civisme pour que ñu mun a am ordre pour que ñu mun a daal di taxaw nag pour def benn say pour liggéey. bon pour def pour liggéey donc je que loolu am na njëriñ donc je que euh, bouclé nañ ñi nga xamante ni moom mooy euh, sujet yi donc ñu benn sujet bu am importance rek nga euh, sa xalaat résumé muy benn coow bu am fa nga xamante moom mooy caaroy ci nga xamante ni moom mooy maire di Euh, Babou Ndoye Thiaroye daal euh, ay nit yu euh, ci commune ngir bëgg jox leen ay résidence pour ñu mën a voter foofu doon doon moyenné à cent mille francs par personne lu toll ci sept njëge njaay ñu ko fi gis askan bi bañ ko yëgee ñu taxaw ci buntu maire bi donc genre trafic yi nga xam ne ñu koy gis camono ji ci ku ci nekk ngir bëgg a nekkaat maire ban analyse nga si def rek en résumé ci coow loolu analyse bi nga ci mën a def rek moo di que Euh, soo demee ba nga xamee ne euh, yow yaa ngi jiite gox-goxaat inondation yi am population bi tiit jaaxle nga daal di dem woy ji gendarmerie pour que ñu daal di ñëw jël sa propre concitoyen di leen jël di leen dóor di leen yar kon nag li nga xamee ne mooy jàngat premier bi moo di que quel qu'il doomu aadama ci boppam en particulier l'africain et le sénégalais moo di que ni ndombo tànk ak teraanga ba mu yore kese moo ko ñor waaye la ñor l'intérêt général loolu dégg nga ci seen gannaaw loxo bii lañ ko teg doo ci gis benn maire boo xamee ne day taxaw di la wax je suis euh, de de au service de mes concitoyens ak yeeg yooyu kooku boo demee ba ci village yi ak ñu nga xamee ne ñu ngi am contact ak yi gisal par exemple euh, le la mairie de Dakar ñi koy wut yëpp yëpp yëpp yëpp xamuñu sax dégg nga seen benn administré bu dëkk Dakar Plateau xamuñu ko la mairie de Dakar da ngay dégg même mais ka nekk maire Plateau sax immeuble Pasteur ña fay liggéey xëy na ña fa dëkk sax xëy na ñaar ak ñett sax xamuleen alors ce qui fait que gis nga pratique ak méthodologie bi ñuy defee politique fii ci Sénégal moom la ñu war a changer tant que changé wuñu ko da ngay gis toujours le flou boobu nga xamee ne moom la opposition bi di wax ñu leen di ree di leen xaqataay naan la fichier dafay laaj ñu gësëm ko dafa laaj ñu kii ko toujours da ngay gis euh, koo xamee ne nee na il lui faut quatre mille euh, votants ah. mu daal di dem yëmbal jox leen cent mille ñu ñëw ñu daal di leen bindal ay këyit préfabriqué jox leen ko ah. dégg nga ba sa concitoyens yi amee ay difficulté ñu daal di leen jël indi leen gendarmerie waaye nag gis nga euh, dafa am lenn loo xamee ne li ñuy wax xale warul fooye safara mooy dal politiciens yi ñoom dañu yaakaar ne gis nga dem na dem na ba nga xamee ne euh, population yi yow gis nga ko démb ca événement yi comme ni ngeen ko relaté ci réew mi quotidien da nga gis ne gaañi ba ñu demee ba gisatuñu lu ñu xam faalewuñu gendarme yi sax ñu ngi taxaw di kii te loolu nag baaxul te loolu rafetul ndaxte euh, boo amee ñoo xamee ne ñoom ñooy nekk les forces de défense de sécurité dafa war a am benn espèce su euh, Euh, euh, naka lañ koy waxee sax cohabitation boo xamee ne dissuasive dégg nga nga xamee ne waruloo toog rek dégg nga jékki-jékki daal di ne euh, foo leen gis sànni leen xeer wala di def noonu waroo waroo waroo defee noonu. donc nag te loolu li ko indi yëpp moo di que ni plan émergent bu jeng président bi ci boppam xam na ko parce que ba mu leen di wax samedi daf leen ne bu leen ma leeralal bu leen ma raayal dara wala ngeen kii ma wax leen ma li xew mais ils étaient incapables wax ko li xew comment se fait nga ñëw pour t'enquérir d'une situation yàlla bi indil la benn làmp bu rëy muy jant bi nga xamee ne looy xool yaa ngi koy xool ci leer gi nga bàyyi ba mu guddi nga daal di ñëw pour enquérir d'une situation donc benn situation d'échec voilà une situation taxaw na foofu d'échec taxaw na foofu donc mu nekkoon donc sujet yi nga xamante ne andi woon nañ ko donc monsieur Fall ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, waaw Mor maa ngi maa ngi maa ngi lay gërëm di la sant di wax rek ni encore une fois balaa may def dara damay massawu population yi dama leen di wax rek ni euh, fii Sénégal yàlla may nañu ay nit ñu baax di ñu ñaanal dégg nga te borom bi rek moom moo moo yore lépp te bu ñu la ñànnalee ba pare boo ñëwee dañ leen naan muñal kon nag dinañ leen muñloo di wax nag ñi nga xamee ne ñoom ñooy jëwriñ yi nga xamee ne eh, gouvernement bi da leen di yónni nañu def très très attention ci population yi nga xamee ne dafa nekk ci ay attente électrique la ñu nekk attente électrique boobu moo di ne rek mooy ku taxaw rek di xaar ñu yore xeeram di wax naan kii ba mu yegg si fi di wax rek ni liggéey bi dafa jot pour que ñu mun a toog def ay plan dénga nga décennal yoo xamee ne dañ koy jël voté ko à l'assemblée teg ko nga xamee ne ñun ñëpp fa la ñuy nekk di ci liggéey bu amoon ni nga xamee ne moo di euh, beneen euh, euh, kuy xeex système bi sax su ñëwee du ko mën a dindi ñu liggéey suñu réew comme ni nga xamee ne noonu la coréen yi liggéeyee seen réew mais bu fekkee ne dañu toog di taf yëngal dinañ leen indil li nga xamee ne moo di saafara ay pompe ba pare daal di jëli ay ndimbal indi sénégalais yi soxlaatuñu ndimbal ku leen di jàngal nu ñuy nappee lañu soxla te pour loolu il faut que ñu daal di teg ay plan yoo xamee ne dañuy def appel à tous les fils de cette nation ak ñu nga xamee ne nekk nañu di euh, investiru bugguma ko woon wax sax mais gis nga euh, dafa am inspiration boo xamee ne mun nañ ko jël ci ki nga xamee ne rek moo doon euh, suñu euh, président directeur général nga xamee ne dafay jóg di def te yàlla tax dem jël alalam def ko ci foo xamee ne xaaru ca gouvernement pour dimbale nit ki pour que mu mun a daal di émerger kon nag donc dafa am initiative yu mel noonu moom la ñu moom laay wax ne ñu daal di ci associer toutes les forces vives de la nation ñu daal di leen impliquer dégg nga ñu daal di def reflexion boo xamee ne institution yi nga xamee ne gabégique yi nga xamee ne ñu ngi toog comme ay ANPEJ ay ONFP ki affaire yooyu nga xamee ne la ñu waroon liggéey liggéeyuñu ko ñu ngi toog rek di xaar weer bi dee ñu feyeku wala ñu daal di am ay euh, li nga xamee ne moo di euh, ay ndimbal aide de la euh, coopération européenne yaag coopération ndimbalu état bi ñu daal di jóg nag liggéey jóg liggéey dégg nga mooy li nga xamee ne moo ñu war fi ñu toll te lii may wax nii ngir yàlla ak yonent ba sallallahu alayhi wa sallam bu ñu dem ba deux mille vingt deux au mois de d'août vingt et août ñuy toog di xalaat di delluwaat di wax la même chose c'est le moment de jóg pour liggéey. te moment liñ jóg pour teg ay stratégie pour xeex situation voilà donc euh, comme ni mu ko joxee donc euh, ñuy ñuy masaw rek ñi nga xamante ñoo nekk ci mbënd mi euh, dégg ngeen li nga xamante ni joxe na ko comme conseil gis na attente yi nga xamante ne wax na ko moom la population bi di xaar donc mu nekkoon seen émission actu réew mi comme ni ñu ko defee saa su nekk rek di si ànd ak sama chroniqueur monsieur Jean Fall di jaajëfal sama technicien yi nekkoon ci ginnaaw caméra yi ñoom ñuy waxee les hommes de l'ombre aussi leen nuyu baax baax baax li nga xamante ni yéen a safoo duñu seetaan di leen wax wuy leen di euh, abonné ci page bi di euh, activer nga xam ne aussi moom mooy cloche de notification ngeen mën di am euh, vidéo yi nga xamante ne mu ngi am ci biir réew mi TV donc di leen jaajëfal di leen jox dig daje suñu beneen numéro ci li nga xamante ne mooy actu biir réew mi jërë ngeen jëf ci taamu ngeen taamu la Rewmi TV merci beaucoup